dit Dara, c'est Cheikh Khadim, comme d'habitude. À un moment donné, Cheikh Khadim, Dara, le dem fofu, Kouam Soukhle, le dem fofu, Moudem, Mouhande, Moum Ak Nijayem, Ak Ak Ak Papa Mounaw. Yu dem Betin Jarim, Mounio fofu, Fak dafa xiif lool, Mouni, Cheikh Khadim, su fekkee ni waliyu la, dina xam, man mi dama xiif lool, te ombalu ma lekk. Mu toog quelques instants mbokki nekk bi ñëw ma ni ko ñëwal yow ak sa papa bu ndaw ak sa nijaay nijaay bi mi ngi nekkoon si Cheikh al Xadim taalibam la mu dem mu fekk mu jox ko lu mu lekk eh, lu mu lekk après timis la woon subax teel mu julli fajar mu ni su fekkee ne Xadim c'est la première fois deuxième fois deuxième jour mu ni léegi su fekkee ne Xadim waliyu la dafa war a xam ni man damaa bëgg a dellu Mauritanie sama njaboot ñu ngi foofu te amuñu lu lekk eh, eh, après quelques mbokki néeg bi ñëw mu ni ko kaay yow ak sa papa mu ndaw de la deuxième fois mu ñëw si Cheikh Xadim ma jox ko temps boobu xam ngeen ne Cheikh Al Khadim du laal xaalis du laal du ko du ko laal ak loo mu ñëw mu jox leen ñaari euh, sara takk ñaari takk mu jox leen ñaari takk te du ko laal ku nekk mu jox ko waxtaan eh, Hamidou bi ma ni mbaa Cheikh lu jox si sama papa mu ndaw mi ëpp lu ma jox ma ni ko mislihu ñetti walaaye ci benn place diggante timis ak fajar léegi euh, maa ngi bëgg a léegi euh, nuyu euh, sunu xadra alxadim bi fii di leen fii kii seen dëkk la fii seen dëkk la fii seen bëgg fii seen fonk fii la fii sugu fara seen relation ak Cheikh Khadim depuis ak yenn relation yi beneen collectivité ndax ñun bu nekkoon xalal Cheikh Khadim la ñu xam téere Cheikh Khadim la ñu xam daanaka bëgg mi ngeen am fii doo doo lay ko parce que fii seen dëkk la Cheikh Khadim mu ñëw fii di sunu maam yi muxtaarul mu dafa ñëwoon fii jànge fii fii moom dafa ñëwoon nekkul ni ñëw jóge jóge Touba ñëw si si si Gànnaar déedéet jóge Touba ñëw ci Touba boobu la si si maam moom itam noonu la fu ñu ne ko kii moom seen dëkk la boobu dañu bëgg maam nga wax j'aimerais euh, euh, porte parole الشيخ البشير الشيخ البشير والشيخ عبد القادر والشيخ الخديم نيكو سيتا خوايبي اك اك سيلي جابين قدف نقر الشيخ نقر الشيخ الخديم اك نقر ريلاسيون موريتاني سنغال ريجينا اوبن امنجرين باسكو ليغي depuis quelques dizaines d'années yéen a ngi ñu fay dem relation fekkee ni seen seen liggéey bi àggu àggul ni daanaka daal relation bi dafa dee woon ngir yow ak seen délégation chaque année dafay ñëw fii commencé na am euh, solo am njëriñ am euh, euh, am am daal dellu na comme avant léegi vous êtes très bienvenus maa ngi leen di nuyu di leen sant di di di ñaan yàlla pour xalifa bi mu am wér ak gudd fan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جل لنا سجامة السلام عليكم إن الأحبة إن بانوا وإن ضعنوا هم الأحبة لن ينساهم الزمن إنا نزف سلاما صادقا عطرا إلى الذين أتوا وفعلهم حسن جاءوا لإحياء عهد كان ذا قدم يا حبذا العهد في إحيائه المنن كانت لنا محن ظلت تلازمنا واليوم في عونكم تجتاز ذي المحن